alors. namm nañ la. maa raw. sañse bi rafet na. merci beaucoup c'est gentil. gis la ci valeur nag rôle bi ngay jouer un peu nga mën nga si revenir un peu. bon j'interprète le rôle de Kenza une ancienne euh, dealeuse bu nekkoon prison après voilà génn pour euh, venger wu. sa rôle bi gis nañ ko li nga ko joué ku ku takk doom ku bëgg récupérer waat doomam mu am ah, jigéen ñu bari ñuy vivre loolu jóge prison perte lu bëri euh, rôle boobu est-ce que am nga ci ay retours. bëri na bëri na déjà comme tu as dit dafa ay nit yoo xam ne ils ont déjà vécu ça donc euh, da leen di touché tu vois et on on fait tout en fait pour euh, rek xam nga consoler leen jox leen courage tu vois c'est pas parce que da nga dugg prison que da nga génn tu na plus de vie tu vois donc euh, jigéen ñu bari comme ni ma la waxee dañuy dund yu mel noonu lan nga gisee bu ñu génnee seen seen suñu génnee prison lan lañ la war a accueillir lan la war a jàppale pour ñu réinsérer moi je me dis que nit yi dañ leen war a jàppale soutenir leen parce que tey dugg nga prison peut-être am na raison yu tax mais boo génnee tu as une seconde chance pour refaire ta vie tu vois et tout. gis na nag euh, rôle bi da nga changé da timide lu la xamee woon ci wiiri wiiri wala yeneen rôle yi bii nga ñëw nag indi femme un peu gangster <laughs> ak yooyu noonu yan yooyu tamit mën nga ñu expliqué un peu nan nga réussir rôle. bon juste xam nga quand tu es actrice man man je me dis tu tey par exemple j'ai eu à interpréter yeneen rôle donc rôle bi nii c'était pour moi benn genre preuve pour wan nit ñi que par exemple am na feneen fu mu mënee. voilà c'est ça c'est un défi pour moi. valeur nag nekk série boo xam ne ñëpp apprécier nañ ko retour yi ñu ciy am nit ñi yan yan yan lan lañ la siy wax. non la plupart des gens ils apprécient nit ñi bëgg nañ ko ça change un peu c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir donc euh, voilà les gens apprécient en tout cas. soirée bi tey nag lan nga ko gisee ak initiative bi Clara. kontaan ci rek di ko encourager ndax moom nit ku baax la parce que ñëw nañ fii mu ibil ñu boppam tu vois euh, mettre ñu à l'aise on manque de rien donc euh, du ma def lu dul encourager ko féliciter ko voilà ci merci bi merci à vous.